asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaare seen mbokk Baba Diaw waa di ñëw rek di def samay taaliq ñu ànd ak naqdu ci li nga xam ne mënu si sëriñ bu tedd bi indi muy sëriñ bajaan ci xadis boobu muy wax Euh, ñu bëgg a wax rek ci xadis bi kese waaye am na luñ bëgg a bàyyiloo xel ci yenn waxin yoo xam ne dafay duggaale ci biir waxtaanu xam-xam yoo xam ne bokk ci comme waxi ñi nga xam ne dañoo feebar rek xam ne seen gémmin dara du ca saf yooyu euh, nañ jàpp ne fii kenn wéru fi ci gis-gis fii kenn wéru fi cest à kenn wéru fi mooy kenn xamul fu dëgg nekk ku nekk dangay wax sa rëyu rek yaakaar na mooy sawaab rëyu beneen bu fi ñëw nga jàpp ne mooy xata waaye kenn wóoru ko ne moom moo nekk ci xàq kon su fekkee nuñ ko jàppee rek kon kenn wéeru fi ñëpp a feebar ba yàlla àtte nag kan moo nekk ci dëgg kon maa ngi ñaan ci kàddu yi ñuy fexe rek di wax ci xam-xam bi direct bañ ŋàññaale euh, ñeneen ñiy wax waaw ak kum manti doon nag loolu duma koy ñaan ci ñi nga xam ne dañuy wax ci xam-xam xadis bi mu muy nettali bay wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ñu naan poojam moo feeñoon ñi naan ay saaxam ñoo moo feeñoon xadis bi li mu rot ci ay place boo ko doon seet toll na ci 32 xadis man bi ma déggee muy wax wax bi di ko dëggal di ko saxal ci yonent bi dafa am lu ma fàttali ko ma ruus sama yaram ndaw parce que lu tax dama mës a dégg benn xibt yi xibt yi ci Égypte xibt yi boobu mu ngi tudd Zakaria Boutros yaakaar naa ko ko vérifié danga nga ko gis Zakariya Butrus benn qibti la boo xam ne masiixi la mës na téye ay boromi xam-xam Égypte di leen dal-dal yu métti ci xadis bi wax waxi doy waar ci xadis bi waaw xadis bi dafa doy waar yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ci ni nga waxee buñ déggee ci sa wax rek yow sa say wax dafa tanaaqut parce que nee nga yonent bi nii la daan solo mooy ay yeelam di feeñ noonu la dégle woon ñu koy ñu koy solo boobu noonu la daan solo noonu mooy sunnaam ku daan solo noonu kay kon fu mu nekk noonu lay mel buy dem jàkka-jàkk bu nekkee ci bitteeg yépp noonu lay mel kon koy loolu kon jarut Ousmane di ñëw muy nëbb ay tànkam ndax moog Ousmane ñooy bokk di julli ñooy usmaan ñooy bokk jotaay fi muy buy buy buy buy jàngale ah mook Ousmane ñooy bokk jotaay bu ñuy dem ay xare yu demee noonu te noonu lay solo xanaa kon boobu Ousmane du ko gis wala Ousmane day gëmm bëtam yi loolu rek dafa tanaaxut waaw beneen bi ci des mooy xadis bi dafa am lu ñu tuddee ci almul xadis al idraaj fil xadis dafa bëri ci ay xadis yoo xam idraaj mooy xadis bi dana doon xadis bu wér ba pare ñu yokk ci loo xam ne lii wérut mu siiwa siiwa siiw ba ñëpp jàpp na dafa wér mën naa la jox jox exemple ci ñaari xadis xadisu taftariqu ummati ala salaasin wa sabiina firqa boobu dafa am idraaj xadis beneen xadis bu ñu wax ne man qaala li axihi ansit wal imaamu yaxtub yowma aljumaa faqad laga wa man laga fala jumaata lahu booba am na idraaj xadis bu siiw la gis nga xadis boobu li nga xam ne moo wér ci li yonent bi wax ne képp koo xam ne kii nekk nga ci jàkka sa mbokk di wax nga naan ko noppil te fekk imam bi mu ngi xutba bu boobaa yow mi wax loolu la xayit mooy euh, def nga ay caaxaan fooful xadis bi yam léegi nag dem nañ ba duggoon ci ne nag képp koo xam ne kii def nga laxaa nga amuloo jumaa ñu bool ko ci xadis boobu ci bokk ci siiw fu ne ñu ko fay gis siiw ma nga mujjee feeñee ci benn téere bu ñuy wax taarixul waasit ci la foofu lañ soo a gisee ne fa lañ fa dugalee li nga xam ne moo si yokkute bokk ci la même chose boo demee ci xadis bi yonent bi wax ne euh, ñi nga xam ne dañ leen jiitu woon ci axlit kitaab ñoom dañoo tàqalikoo woon ci lu mat ñi na 71 firaq ñi ne 62 71 firaq ñi ne 72 firaq xadis bi li mu wàcc li mu rot ci kutub yi kutubu sunna yi mat na neuf riwaay yoo xam ne benn bokk ci ci morom am na yoo xam dañu wax ne kulluhum fil janna ilal naar am na ñu ne kulluhum fi naar ilal janna am ñu ne wa sabuna fi naar illa waxida am am na ñu ne ma ana alayhi wa ashaabi am ñu ne assawaadul azam am na am na ñu ne am na ñu ne am na ñu ne ba mu mat juróom-ñeenti riwaay yoo xam ne benn bokk ci sa morom te benn du ci benn lenn moo ci wér li ci des yëpp ziyaada la mooy lu ñu tuddee idraaj li wér mooy yeneen dafa wax ne am na ñu leen jiitu woon ci ahlul kitaab dañoo tàqaliku woon ci lu tolloog 71 wala 72 na ngeen fexe ba bu leen tàqalikoo falaa taftar falaa taftar falaa taftaxiru falaa taftariqu bu leen tàqalikoo foofu la xadis bi yem. ñu ñëw yokk si ne euh, euh, danañ seddali ko si juróom-ñaar fukk ak ñaar ñoom ñëpp ñu ngi ci safara ba mu des kenn am xadis bi ñëw na ñëpp a ngi aljanna ba mu des kenn wax ci ay wax yu bëri yoo xam ne yooyu yëpp ay ziyaadaat la ñu tuddee idraaj ci ci fil albil xadis loolu dafa am ci xadis xadis bi loolu moo ci nekk idraaj moo ci nekk bu amee li ci wér mooy lu yonent bi wax Usmaan na ko rajulun dafa nekk euh, nit koo xam ne kii dafa bëri kersa te ragal naa ne su ma ko euh, mayee ndigal mu dugg ci nii ma melee mën naa am dana am kersa ba du wax soxlaam foofu la xadis bi yam ñu yokk ci xanaa duma rus ci góor koo xam ne kii malaaka yi dañ koo rus loolu idraaj la ci xadis bi wérul te loolu moo ñu indil problème bu rëy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam buy rus sunu borom lay njëkk a rus te lii nii amul dara lu ci sa xadis boo gisee tanaaxut bu ci am aussi bii dafa digal Omar Aboubacar wa Omar ñoom ñëpp ñu ñëw dugg si ca na meloon bi mu ñëwee bi Ousmane waree ñëw mu daal di jóg changé mu daal di toog defarwaat colam am na beneen riwaay boo xam bi mu ñëwee dafay dafa jóg defaru waxa Aïcha na ko defaral sa sa sa sa sa sa sa sa yére Aïcha yére ah. am beneen riwaay boo xam dañu wax ne yonent bi si boppam dafa fekkoon mu woddoo seru jiitle bu Aïcha mooy marat boobu ci biir xadis bi ah. yooyu yëpp di ay wax yoo xam ni te loolu boobu noonu ñuy wax marat bi seeru jiite bi kii boobu Aysa moo ko nett ak osmaan Ousmane moo ko nettali Ousmane mi nga xam moom la yonent bi ruus naka lay demee ba gis seeru jiit la boo xam ne bi moom la yonent bi sol surtout seeru seeru jiit la boo xam ne Aysa ko moom osmaan gis ko ba di ko nettali Ousmane moo nettali xadis bi xadis boobu kon kay koo xam ne kii am nga kersa ba mënoo gis sax ay ay yeelu yenent bi nooy mën a gisee sérub jiit la boo xam ne bi jigéen na ko moom yonente bi woddoo ko nga di ko nettali ay tanaaxut yu baree ci nekk yoo xam dalay wan na xadis bi dara wéru ci baaxul jëkkul sax ñu koy wax ci lislaam baaxul sax ci deru yonente bi sallallahu alayhi wa wa sallam dafa am loo xam dañu war dañ ko war a jàngaat euh, gëstu ko xool ko bu baax xam ne lii jëkkul ci yonente bi kenn waru koo wax mu jëmee ci moom wallahi alazim benn masiixi bu tudd Zakariya Butrus bu neexee nga tàpp ci net bi xool ko xam naa mën naa am nga gis ko def na ci kii boo xam ne bi ñooñ dañoo ñoom dañuy jàng euh, chrétien égypte yi moom waa Azhar ëppul nañ xam-xam ni ñuy mokkale alquran dañuy mokkale sixaax yi xam lépp waaw wax ci ay wax yu doy waa moo tax bi ma déggee nga koy dëgëral ak di ko kii naan yonent bi nii la doon solo nangam yonent bi fekk noonu la doon solo di ko génnee kay kon Ousmane mi ngi dajeeg moom tout le temps bés bu nekk jamono ju nekk heure bu nekk mu ngi gis yeelam yi kon lu mu ciy nëbbati doyee tanaqut la faade maa ngi jéggalu nag salaamaaleykum wa rahmatullah